asalaamaaleykum mbokki patriote yi mbokki àdduna mbokki sénégambien seen xarit seen wala sëriñ Cheikh Niass dafa moom Khalifa Niass la grand patriote ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen baalu àq di leen am mbégte ak naqar gu ànd mbégte bi ci jiitu mooy Bassirou mu jàll Sonko miñ kale mooy naqar gi waaye nag dafa am luñ stratégie buñ teg ñu bàyyi ko xel ñun ñëpp ñi nga xam ne élection yi buñ ci yeggee ñooy saisé maanaam ñooy saisel ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye nañ ànd ak vigilant aussi tamit te déglu liñ leen di wax ak fañ jëm ak fañ teg tànk yi yëf yi nag pour ñoom mu bañoon mu ñaaw moo tax ñu jàllale Mame Boye Diao Aly jaay Ndiaye sa Seck Rose Wardini extra extra pour bu deuxième tour amee ñu ne deuxième tour am na ñee ñëpp dem nañ ànd ak ki nga xam ne mooy Amadou Ba parce que Amadou Ba moom kenn kase mënul sax gagné cinq xob bay gagné bay gagné ay élection deuxième tour léegi nag nu ngi leen di yeey yéen patriote ne leen xeex bi benn mbir la rek mooy Ousmane Sonko li koy génn fee suñ carte d'identité parce que sànnantey xeer toj génn nangam nangam defarul dara dañu taxal ay élection bu boobaa liñ bëgg duñ ko am te nag nit buñ jàppee sa nit mu leer na lii moo ko fa mën a génne dëgg-dëgg xeex bi nga war a njëkk a def mooy taxaw ci loolu ba loolu génne ko fa influenceurs yëpp nañ génn influencer nit ñi mair ñi ndaw ñi paa yi xamal leen aussi tamit fañ jëm la fay la fa am lañ fay fekk ak nangam boobu dóor yi teelee métti lépp luñ sàcc lu feeñ ci biir dóor yi gis nga borom milliard boo ko sàccee cinq mille francs wala dix mille wala trente mille la ko sàcc bala koo xam day yàgg parce que la def ci compte baabar yi mooy lan mooy ñun suñuy milliard mooy suñuy carte électeur nañ ko téye jiima xeex ak président Macky Sall jaamu yàlla la jiima xeex ak Amadou Ba mi jaamu yàlla la parce que inconnu bu kenn xamul ñu lay jàppale ci côté bu ne dem ba nga xam ne c'est la première fois ci histoire Sénégal ki nga xam ne moom lañ jiital moom mooy def recours moroomu candidature am pour bu mu dem kon loolu yaa quelque chose parce que xam na ne jomaay mi bu demee bu dee moom ak moom la rek mi di yëf yi jeex ñu ngi leen wax ne la gën leen nàmm seen i carte te ngeen das ko te ngeen déglu parti bii di Pastef campagne bi nit ku nekk la nga mën ci levée de fonds bi ñu ngi lay ñaan génneel sa dërëm nga def ko ñu tëdd ci hôpital yi nañ leen teel faj xale yi raam te yor carte électeur wala carte d'identité sax nañ leen jox si seen carte ku mënta dox nañ fexe mu mën a dox ba mën a jëli carte am ñu ngi leen di ñaan bis boobu le 25 février le 24 képp kenn ku ci nekk na nga dem pharmacie jënd garab goo xam ne boo ko naanee doo nelaw deux jours ëpp na ko jar na ko buñ paree ñu jël suñuy suñuy oto wër nit ñi fuñ nekk suy région bi nag ñoo tax may wax foofu laay tëjee muy àll bi àll àllaan yi dëkk dëkkaan yi nañ fa dugg sensibiliser nit ñi wan leen lan mooy projet bi te ñu tëpp suñuy bët xool bañ bañ bëree bëgg bëree bëgg daanu daanu ñàkk bëgg daanu daanu yëf yi doole ji gannaaw yàlla ñun ñoo ko am mooy suñu carte électeur yi suñ yaay ak suñ maam ak suñ paay ak suñ maamataan yëpp buñ ba kenn nañ jug xeex président Macky Sall ak Amadou Ba ak liñ bëgg a def ci réew mi muy lan muy noot ñu rey suñ doom yi ñuy dugg ci gaal yi di aw ci yoon Nicaragua bi extra extra zircon bi gaz bi phosphate pétrole lépp nekk ci réew mi mënuñ koo jëriñoo tubaabu xaj yi ñëw di ko jëriñoo lii la Ousmane Sonko ne def fiy jeex tàkk lu ñëpp bokk ñëpp yem ci président Macky Sall ak ñi mu ànd ak nañ lu ñëpp bokk ñëpp waruñ cee yem ñoo war a buuru def ñeneen ñi baatalo di ñëw leen mosal ñu topp suñ kaw loolu dafay war a jeex tàkk définitivement kañ lañ bëgg mu jeex mooy le 25 février jërul coow jërul xeex jërul toj xeex ak toj ak nangam am na lu ñu ko gënal mooy das carte yi jéem a déglu Ousmane ak lu mu bëgg lu bëgg bëgg nañ ko lu mu bëggul bëgguñ ko jërë ngeen jëf